may Maimouna Ndour Faye di ko wax ne rek yàlla na ko yàlla teggil nattu bi yàlla teggil ko métit yi muy dund yàlla mayaat ko bakkanam incha allahu rabbi ba mu delluwaat ci liggéeyam mais en parlant de sa fi Maimouna Ndour Faye dundee loolu démb la la xëy ci loolu mais àdduna bi xam nañu ne Pape Abdoulaye Touré li mu dund tam dafa metti li ñu def Maimouna Ndour fay méngale ngeen ko ak li Pape Abdoulaye Touré dund parce que buñ dee wax naan actualité ci la ñuy wax nañ leen méngale ñaar yi dégg ngeen li Pape Abdoulaye Touré dund mu naroon cee ñàkk bakkanam dégg ngeen li mu dund tey jii bu yàlla tuddoon ne foofu la war a ñàkkee bakkanam kon tey dañuy def comme Papito Kara def comme keneen ak keneen ñi ñàkk seen bakkan doon xeexal Sénégal doon daw ba ñàkk seen bakkan Pape Abdoulaye Touré yàlla moo def ne dafa war a ñëwaat toog nettali ñu ko Maïmouna Ndour fay aussi de même mais fi ñuy indi ñëwoo mooy pourquoi kumba am ndey ak kumba amul ndey ci situation actuelle bu réew mi lan moo tax doom yépp yematuñu fa yàlla ci biir xolu nit ñi lan moo tax xamatuñu ne ñëpp a yem fa yàlla lan moo tax xamatuñu ne bakkan yëpp a yem te métit boo teg sa morom xamal ne mën nañ la koo teg lan moo tax ñuy indi ñëwu ak di métit lu lu dal sunu moroom nit boo xam ne nii dañ koy yéene sunu beneen moroomu nit lan moo waral fausseté boobu lan moo waral tey ñu toll fii tey ci iñaan ak iñañati lan moo war a tax ñu jam kii tey keneen ki moom génn nañ ko kaso semaine passée mu ñëw toog di wax métitam di wax li ko ay nit def te lépp rek ay nit ñoo fa jaar lan moo war a tax tey Maimouna Ndour fay ñu agressé ko enquête bi nekk en cours kenn xamagul lan la ñu jël ay nit di leen ko jiiñ lan moo tax ñu war ko étiqueté ay nit te te xam nañu ne bu yoon defee liggéeyam nam ko war a defee ni nga xamee ni noonu la ñuy rayee koo xam ne siwul siiwul barki démb boo Njaay marché Grand yoo am na kuñ fa rey koo xam ne dañ ko rendi chaque jour ñu dégg fi ay rey nañ fii nit ay nit jam na fii nit ay agressé nañ fi nit mais à chaque fois da ngay gis euh, sunu sunu force bi sunu force yi nga xam ne tey ñooy force de l'ordre yi bu ñu génnee def seen enquête du moment où dañuy trouver li nga xam ne tey ji moom mooy coupable bi dañuy trouver kan moo def ñaawteef boobu bu enquête bi déroulé dañuy xam kan moo def ñaawteef bi ci nu mu gën a gaawee comme lan moo tax ci kaaw mun a Ndour fay waruñoo am yàqin ne yoon dina def liggéeyam te bu defee liggéeyam dinañ génne la coupable pourquoi ñuy gaawtu di ko jiiñ ay nit pourquoi ñuy gaawtu di ko politiser lan moo waral lu ni foofu lañ toll ci Sénégal foofu lañ toll ci xalaat ñaawteef ci sunu ay ay ay ñoñ foofu lañ toll ci gis ay ñaawteef ci sunu ay ñoñ foofu ñu toll noonu nag la ñu wax ne dara indiw ko fi lu dul waaye politique yi dara indiw ko lu dul politique bu salte dara indiw ko fu lu dul régime buy séparer ay doomu aadama régime boo xam ne ci sëriñ si nee moo ci mën ci séparer ci doomi adama yi moo ci mën ci séparer diggante nit ak nit force de l'ordre ak euh, citoyen simple moo ci mën ci séparer ci côté yëpp yëpp yëpp dañoo dem politique jàpp suñu xol yi ngos ko ngos ko ba mënuñoo defante lu dul lu ñaaw mënuñoo waxante lu dul lu ñaaw mënuñoo xalaat ci suñu moroomu doomu aadama lu dul lu ñaaw te lépp politique moo ko yàq wax leen na leneen lu dex nekk suñu diggante lu dul politique politique képp la moo ñu yàq nar nañoo tas tasar ci régime boo xam ne li ko ñor képp képp la xam ci régime boo xam ne nii li mu bëgg moom mooy palaasam bi mu toog du fa mës a jóge ci régime boo xam ne nii ñi ko wër ñëpp li ñu leen mën a waxal moom mooy dañoo ŋànk ci nguur gi tëw tëfaa jóg bu ñuy wax ñi nga xam ne ñoom ñoo wër Macky Sall tey mooy ñi wëroon Abdoulaye Wade en 2012 ñoom ñoo indi loon Sénégal ci guuta 2009 2010 ba 2011 manifestation yi fi amoon yëpp ñoom ñoo doon xam ba Abdoulaye Wade ñoo doon ne ci ginnaawam ay paa yu màgget ay maire yu dee ñoo xam ne boo duggoon tey ji ci ci Google tey ji tàppe seen tur duñ la génne lu baax xam naa ne man setuma de waaye setoo leen parce que seeni ay dossier mi ngi ci Google boo duggee arnaque ngay dégg musiba balaa rek ngay dégg ci ñoo xam ne nii tey jii Sénégal da leen a wàccu mënatuñoo xeex lu ñu amati biir senegal parce que seen wàll dafa wéy ci ñoo xam ne nii ñun xam nañu ne dootul ñoom ñoo ñuy génne ci guuta gi ci ñoo xam ne ni ñun xam nañu ne di ñoom tey jii ñoom ñoo ñuy jëlee ci métit bi ñu nekk ci senegal ni mu delloo gannaaw ci démocratie ni Sénégal delloo gannaaw ci àq ak yelleef doomu aadama ni senegal delloo gannaaw ci li nga xam ne tey jii moom mooy suñu bëgg-bëgg moom mooy ci feebar faju ci bëgg lekk lekk ba suur ci bëgg naan naan ci bëgg a dem ci école yi jàngi ci bëgg a am su éducation bu normal talatuñu dara lu dul daw ay lacrymogène xeexoo ci suñu biir rayante fii tojante bopp xeexonte rek lañu tal te lu ñu indi lépp lépp foofu du lenn dul waaye politique yi nga xam ne li leen yitteel moom mooy seen seen am am seen nekkin ak yu donc euh, ñu barastiku rek ñëw ci manifestation bi nga xam ne am na tey am ay kuréel yoo xam ne ñoom ñoo ko tëral kuréel yooyu am ci ay kuréelu politique mais itam am société civile am ñi nga xam ne tey jii mooy ñun les hommes et femmes de médias ñun ñi nga xam ne yàgg nañoo toog ci ginnaaw écran yi comme nii ma koy defee di waxtaan ak yéen ci situation actuelle bu réew mi di waxtaan ak yéen ci politique ba mu juróoñu ay daw làqu ba mu juróoñu leneen ak leneen bay tax ñu taxaw di dëggal sunu bopp ne pourquoi pas ñu génn ci ginnaaw euh, caméra yi génn fi nga xam ne moom mooy loobi ñu dugal mooy génn rek à chaque fois di wax di wax di wax di wax ci askan wi mooy génn ànd ak askan wi ci mbedd yi mooy def man ut ay manifestation taxaw ñaxtu mooy dem ci place publique yi wax ak ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi wax ak son gouvernement indi ñëw ci kanam sénégalais yi ànd ak ñoom seen naqar ñun FDD loolu rek moo ñu tax a jóg loolu mooy sunu yitte bu ñu fay xeexoon tey ba Sénégal jotaat ci dignité bu ñu xeexoon tey ba Sénégal jotaat ci démocratie élection am yu transparente ñu dund li nga xam ne tey jii moom mooy jàmm ak salaam ñun dañuy replier wu dellu tey jii ci sunu ay ginnaaw caméra dellu ci sunu ay ginnaaw micro toogaat fa dëgg pire ñor ñu rek ñu koy wax askamu Sénégal donc yaakaar naa ci cause bu noble lañ nekk mooy dindi casquette journaliste dindi ay casquette fam et hommes de médias dem ci kanamu ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy kanamu régime actuel bi. ànd ak sénégalais yi ci terrain bi wan leen ne leen ñun dañuy taxaw duñu ñu a daw te yaakaar naa ba ñu ko sumbee ba tey ci loolu lañ ne ndax fii ñu defee tey manifestation bi ñun FDD ñun ñoo dem uti autorisation ñu autoriser ñu ko naam sax ut na ñaari yoon ay autorisation manifestation ñu bañal ñu ko donc bi ñu autorisé bu tay bi ñu doon sant sunu ya sunu borom yàlla ànd ci ak sénégalais yi mais ñu leen di sant di leen gërëm gërëm gu amul app yéen sénégalais yi parce que nee naa tolluñu ci ngërëmante mais dama leen di encourager di leen wax ne yàgg naa wax ne benn lam du yëngu bu doonee ñaar da yëngu ba lakkal nit ñi mais su deenee nee juróom imagine leen mu doon cent lam day diisal borom bi ko takk waxuma laa nag yëngu ba nit dégg ko kon lii mooy sunu doole mbooloo mii ngeen àndal tey ñëw fii ci terrain HLM Grand Yoff loolu mooy sunu doole kàddu yi nga dégg ñu yëkkati ko fa loolu mooy sunu doole parce que kat laaju ñu toj laaju ñu yàq laaju ñu yàqante laaju ñu leneen li ñu laaj mooy sunuy droit ñu am droit manifester li ñu doon def tey tere terrain HLM Grand Yoff parce que institution sunu constitution moo ñu ko may am nañ droit laat manifestation dem yëgale ne dañoo bëgg a def manifestation tey suñu droit lañ ñu jox kemandewuñu ko ñaanuñu ko dañoo dem yëgale ñu nangul ñu ñu ñëw def ànd ci ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréeli fupp parce que démb gis ngeen conférence de presse bi taxaw mais bu ñu ko dee def loolu lépp nag moom mooy li ma wax benn lam du yëngu moo tax ñu ñëpp ñu bëgg boole suñu doole bëgg doorandoo dóorandoo xàccandoo bëgg sunu sunu sunu sunu ki nga xam ne moom lañ jàkkaar lool di sunu adversaire ñu mettre ko à terre te bu ñu àndandoowee mën nañu ko bu ñu àndandoowee àndandoo boole sunuy doole wallahi azim mën nañu ko gëm sunu bopp parce que lépp ay doomu Sénégal la woowuñu tubaab bi ne kaay woowuñu kenn ne ko kaay lijjantul ñu sunu Sénégal ñu ngi wax de euh, CEDEAO ONU ñoom ñëpp buñ leen boole woon mën nañu ñoo indil jàmm su dul ñun doomu Sénégal dañoo taxaw mën nañu ñoo dello sunu démocratie delloo ñu sunu dignité lu dul ñun doomu Sénégal dañoo taxaw lu dul ñun les dignes fils du Sénégal dañoo taxaw fépp am yaakaar ci sunu réew taxawal lool moo waraloon tey jii le de mars ñu doon amal li nga xam ne moom mooy manifestation bi te manifestation du rek di wër di wax di déet non non du loolu manifestation mooy liñ doon amal tey presse sénégalaise bi ñëw fa presse étrangère bi ñëw fa ñëpp ñëw fa ñu wax sunu naqar moom mi ko bañ a dégg di ko dégg mu neex ko mu naqari ko parce que foofu lañ toll moom. dafa ñaaw na gën a ñaaw dafa bon na gën a bon waaye tam nañu arrangé ñun doomu Sénégal yi nay suñu arrangement lépp lu ñu def nay suñu arrangement ñun doomu Sénégal yi te bu kenn xool rek ne man li ma arrangé parce que moo ñu jural li ñu nekkee tey nañu xool lu arrangé mbooloo mi nañu xool lu arrangé Sénégal nañu xool lu arrangé suñu ëllëg ñu dox ci wax ci gàcce ngaalaama yéen ñu nekkoon tey terrain HLM Grand Yoff di laaj seen démocratie ak leneen gàcce ngaalaama yéen donc euh, li fa am ñépp gis nañu fi mu terminé nee naa leen bu ñu sunuy noon ree ñi nga xam ne dañoo gis ñu ñu war a échec buñ ñu ree ñi nga xam ne dañu ne dañuy échec ñooñu ñu leen may ñu ñuy ree politiciens ak seeni yëf buñ ñu ree parce que man du ma ne rek kii politicien kii politicien ñun ñëpp ñoom ñëpp a bokk gaal nañ leen woyal ñu dem déedéet parce que am na ñoo xam ne Sénégal moo leen ñor am na ñoo xam ne ni taxawal Sénégal képp moo leen ñor te benn adversaire la ñu am muy tay ki jiite réew mi Sénégal kooku la ñu am tay jii pour jële ko ci réew mi kooku la ñu am tay jii pour ñaaw téef bi ñu nekkee mu teggi ñu ko kooku la ñu am tey jii pour élection yi ñuy yu transparente mu yóbbu ñu ci jàppal ñu dat ñu dem ci senegal dellu ci jàmm keneen remplacer ko ci jàmm ak salaam donc loolu bu ñu ko bëggee du ñu diviser wu du ñu wu du def ñaaw téef du ñu def yenn yu sew yi duñ ko def li ñu dund ji mënoon naa ñàkk mënoon naa ñàkk façon comme ni ma ko waxee dañ di indi ñëw dañuy naqarlu mais pootum biir néeg lañu koy def yéen ñi may seetaan ki ñu jàkkaar ne dañ koo bëgg mën ci côté yëpp te ba tey ñu sës ko ci miir wis bi ba mu ba nekk ni mënatul dara bu ñu kookuree ak ay ñoñam nañ leen def pootum biir néeg nañu teg sunu ay ay besoin fële sunu ay bëgg-bëgg nañ ko teg feete jiital Sénégal bu fekkee ñun ñoo bokk lu ñuy xeex bu fekkee nag bokkuñu lu ñuy xeex képp ku jóg pour def lu ñaaw pour def lu bon yàlla la yàlla teggi yàlla nga puus suñu yoon yàlla boo bokk ñun yoon yàlla boo am xelu yàq parce que ay xel yu sell ñoom ñoo dajaloo ay xelu yu sell ñoom ñoo bëgg a def ñoo ay ñoo bëgg a indiwaat